الفاتح لما تغلق والقاتل لما سبق ناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق المختار العظيم mëtëñen ndam dëgg dëgg ndam gàmmu gi musu fi am wala bu jëw rek at mu jëw rek ñu ne bii musu fi am daaw dañ doon musu fi am bii bii musu fi am waaye loolu ci seen góorgóorlu la. Happiness TV la joie yu ma déggal lañu xale yu ma nangul xale yu ma jox seen lépp waaw yàlla moom dafa ma jox xale yoo xam ne dañ ma bëgg lool waaw seeni alal yëpp lu ma wax rek dañ ko cay def dañ ko ciy li ma la wax nii ñoo def lépp daal ñoom ñoo def lépp sant naa leen këram naa leen yenn yàlla barkeel maa ngi sant itam dëkkandoo yi yëpp. de yëpp maa leen sant yal na yàlla barkeel la yal nañ ko fekkee déwén te kenn du màgg te fekk ñu ñëpp ñu yokk ku ci am feebar bu muy sooxaale yal na ko yàlla na ku ci dox fekk ceew te yëgoo ko yal na am feebar boo xem tamit yal na yàlla dindi bàyyi naqar sa kër wala loo jaaxle yan na yàlla jaaxal di jaay buñ fi jógee kenn ku nekk rek yan na nga gis yokkute tànk yi ñu fi ñëwee yenn yekk di ci am yi ñuy ñiboo yëpp yenn yàlla def ko ci am yenn yàlla sellal suñu xol yi yenn yàlla sellal si xol yi nit moom bu xol bi sellee rek baax na bu xol bi sellu du dara yenn yàlla sellal ñu suñu xol yi si naam kontaan naa yéen sama mag yi baax gërëm naa ni ngeen may taxawoo doy na wax dañ may taxaw trop yéen seen mbajeen yi dañ may taxaw dañuy ñëw ak seen alal ak seen tout bokk ak man ba bët sa man na yàlla dimbale la jaay islam léegi ñu bàyyi kii mu tëj euh, digal leen après gàttal a tasaaro ñaan ñaan bu kenn yàkkam wax ji de du bëri ndax yaakaar na nopp yi fees nañ xol yi taataan nañ lépp euh, peeb yàlla bi la lépp jëm yàlla ji la ndax eh, yàlla ngeen di xeeñtu ndax yéen a taxawee yàlla ci kaw suuf ndax yàlla ba muy bind aadama dafa wax malaaka ne dama bugg a def sama kutal sama ci kaw suuf sama kutal mooy ku may remplacer koo xam ne mooy taxawee sama jëmm ji ñu ne ko ndax danga nga koy indi koo xam ne day tur dere ak di yàq mel daf leen ne sob ngeen man li ma xam-xamu leen ko te def suuf sa ban ëf ko def ca lam ci def mu nekk aadama mu nekk kutalam kaw suuf wàccee ko ci kaw suuf kon loolu loolu yëpp yàlla mu ñu ko cërale ñoom ñu doomu aadama def ñu tajali ci jëmm yàlla ji suñ lépp de yàlla dara suñ dara dara génnut yàlla suñ dara génnut yàlla dama koy faral di expliquer comme yàlla ñun la def ñu war a nekk utalam foog mu nirolu ñu ak jëmmam ji dama koy wax nii wane nii am allahu yàlla te sa loxo yi la waaye am na beneen bu gën a boo defee nii samaaniya ngay am mm-hmm. dafay am waayit jëlal bi waayit bi samaaniya bi 18 bi 81 mu jëlal 99 muy tur yàlla yi te loolu yëpp yàlla am ko séddale ci mm-hmm. diggante loxo ndeyjoor ak càmm kon lépp yàlla la boo toppee bopp bi allahu la lay jox tànk yi allahu lépp lépp lépp yàlla la dara gënu fi yàlla tur defee waaw mu ngoog wallaahi soo taxawee nii jub kocc soo taxawee nii jub kocc alif la alif mooy un un mooy waay bàmmeel bu dee sax bu mu doxee mission ba mu dee ba ñu ne dee na dee ak zaayir gi ñu gas pax suul ko sax jalba sax alif la dem ca kenn yàlla la dara gënu fi yàlla lépp yàlla la yàlla nee na yonent bi salaa salaam ne annaa minallaahi wal muminuuna ñu gëm yàlla man ci yàlla bàyyeekoo ñu gën yàlla yëpp ci man lañ bàyyeekoo yaakaar naa suñu wax na ko bii ci guddi waaye yonent bi bu ko neexoon mu ne man ci yàlla bàyyeekoo yéen ci man ngeen bàyyeekoo kon lépp yàlla la dara gënu fi yàlla yàlla wax na ne waaye na maa tuwaloo fa bu ak foo leen jëm fekk fa yàlla soo jëmee xarbu soo jëmee sarq so jëmi jënnoog ciment lépp yàlla ngay bàyyi jeexal ko ne am na nafsu wala afaqu ma ma raytana tara man maay gox yi maay jëmm yi maay bakkan yi maay lépp maay ruux yi maay lépp man Cheikh Ibrahima Niass kon kon dara génnu fi yàlla macha allah dara génnu fi yàlla lii nag ki ñu ko xamal mooy Mawlana Cheikh Ibrahima bu taxuloon moom dañ dund ba dee duñu xam yàlla waaye Cheikh Ibrahima Niass moo ñu xamal yàlla parce que la laa yudriku al absar wa yudriku absar bët yi ñu ngi koy gis Moussa Moussa ca doj wa dañ naan bam ba vraiment tajalla ilal jabali sa ja'alahu dakkan fa sa'iqa Moussa déedéet Moussa dafa effacé woon yàlla yàlla seyal Moussa ci jëmbam ji ndax jis nga ba mu ko naan faxla ana layka innaka bil waadil muqaddasi tuwa innani ana allahu laa ilaha illa kon lépp yàlla la jërëjëf si Abdoulaye kontaan nañ ci yow mbokk mu baax nga mbokk mu ñuy bëggee mbokk mu ñu sopp di la ñaanal yàlla nag jamono bu nekk yellante woon mbokk ñaam yëpp mel ni yow ndi koon de bu ñu tëddee nii la ñuy def rek jaaxaan ci ñaan yeeg ci farlu ci jaamu yàlla gi ci sellal gi te xam naa noonu nga sell ñun ngay ñaanal yàlla du noonu nga ñu ñaanalee ñun ñëpp ku am na kilifa ku mel nii mm-hmm. ah man de li ma ci xam mooy jàpp moom dëgër rek parce que yaakaar naa fii moom tey nit mënut fee wax Idrissa bi la mu wax ci tànt bi <laughs> tey la ma sotti ci xam-xam man damay sax lu tax mu toog ba heure boobu sax muy soog a wax kooku guddi yëpp la waroon a wax kooku moom moo war a wax sax parce que moom moo xam yàlla te parce que jàng na nasaraan jàng na église jàng na lépp te lu mu ci wax nga ne lii la kooku moom moo ñooñu ñoo war a wax mais ñeneen ñoo waruñu wax mais ñooñu moom war nañoo wax góorgóorlu leen ci li ngeen ne affaire bi lii la lii la de am na seen moroom ñu ne ci musique ba am na ñu ne ca tàdd mbeer ba mais ci yéen yàlla affecté leen fii sant leen yàlla mënoon leen affecté foofa ah pourtant ñoom ay nit lañ rek li leen rek moo leen formé ah li leen formé rek moo leen formé mais ñoom gis nga ko gis nga ko yàlla ak leen xiir ci ni fecci am na ñoo xam ne fecc na seen métier am ñoo xam ne wéyu seen métier am na ñoo xam ne taasul seen métier yéen xiir leen ci ngeen ne taasul yàlla ah macha allah yal na yàlla gën leen a jàppale yal na yàlla ndaw ngeen yal na yàlla def leen mag te lii yal na leen ci yàlla gën a saxal ngeen gën cee dëggu yéen ak Cheikh Abdoulaye ba pencam yàlla barke Baye. suñu xol moo fees ni bëgg a wax yëpp sàmm nañ ko wax ne xol bu fees waaw daal sant yàlla rek sant a rek sëñ bi nag ñu ngi lay ñu ngi lay wax nag nga war luñu ne fi ñu bàyyee ko soxla yëpp faj amiin fi jógee rek yéen ne soxla yëpp